يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki تلسبيكتاتي u تي في dellusiwaat nañu di leen nuyu di leen ziar di ñëwaat ci seen émission bi di bernde ci weeru koor ngeen koy am bés bu nekk ci waxtu wi ñëwaat nañu fa yéene àndaat ak yéen ci bernde bi dellusi rek fi ñu daaneeloon suñu kàddu euh, mooy wone ne weer wi weeru mm, promotion la promotion nag suñ ko waxee mooy mm, nga dugal benn ñu dolil la ca fukk delloowaat la ko te suñ borom noonu lay fule jëf yi ci biir weer wi kon weer la woo xam ne benn bu baax boo ci def rek suñu boroom dala koy fulal mën na koo ful boo juróom-ñaar fukk kon moo tax farlu ci ci lu baax lu am solo la nga xam ne daa bokk ci saison yi nga xam ne saa bu egsee jaam bi am na sens yu bari ci mën a am ngërëmal yàlla ndax weer la woo xam ne bu teroo rekk bañ taafeeru ko ba seen weer wi suñ boroom day tëj juróom ñetti bunti aljan safara yi juróom ñett ñaari bunti safara yi waaye tijj itam juróom ñetti bunti aljanna yi dal di tenk seytaane eh, wooteloo malaayika muy wax ne yaa baaqiyal xayri aqbil yow mi bëgg lu baax yow mi bëgg yiwu profitool te gaawantu waaye waaye yaa baaqiya charri aqsir yow mi nga xam ne ab safaan nga bëgg booy bon dellu gannaaw te xam ne safaan jàppandeetut kon weer la woo xam ne nit ki pour mu am ci yiw pour mu baax ci lu yomb la kon yàlla nañ ci yàlla dolli tawféex ba ñu mën a màng weer wi li ci nekk ci ay yiw mën cee gën a jege suñu borom tabaaraku wa taala ba mën ci am ngërëmam ndax koor jaamu yàlla biir yépp mooy jaamu yàlla gi ci gën a rëy comme ni nga xamee ne jaamu yàlla ay zahir yi julli moo ci gën a ndax koor mooy loo xam ni def ak boromam rek ko xam moo tax suñu borom feete woo ko donte moom moom lépp waaye daa wax ne koor moom maa ko feete woo maa ko moom te bu élégué maa koy fiyal sama bopp ndax moom rek contrôler ki woor kon loolu tey mooy suñu perndeb tey kon dañu ñëw ci naafilaak tey jële ko ci téereb Serigne bu Mbacké boobu yi di Qurratul Ayni muy guddik juróomeel ga Serigne Souhaïbou nee na ku ci julli ñeenti rakka bu ci nekk mu jàng ca faatiha benn yoon alam nasrah ak xul huwallahu ñetti yoon mel na ni ku aj junni yoon omra junni yoon dees na ko musal ci ak ñàkk te des des na ko dolli warsag te xaraf wu ci nekk des na ko ca bindal ñaari malaaka yuy far ay bakkaaram e di bind ay yiw di bind ay yiwam di ko yëkkatil ay daraja ba bés bay dellu si déwen te bu faatoo deesu ko dees na ko bindal tuyaaboy ku dee ci jihaad te desna ko jeggal bakaram yep te desna ko musal ci mititi de te faw dana dem dana am ngermul yalla te bu faato desu desna ko ubbil ci bamelam bunti aljanna mu def mu di ca xewlu ba kero bes penc ba kon lolu yep ci ngeneeli eh, nafi la gi la يلنا يال دفل ني توفيق ني مون كو جوخيت يالا نانغوكو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا لا